Reug Reug ñu ngi lay nuyu. waa maa lay fay avant tout ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di julli senente bi. Euh, Reug Reug ko xam-xam ko ci lutte simple. waaye ak lutte avec frappe foofu yaakaar naa ne def nga say preuve ñëpp teg nañ seen bët mais ñu jëm ci beneen discipline bu bees sport bu bees maanaam MMA lan moo dugal déjà Reug Reug ci boobu boobule euh, discipline. waa MMA dafa doon loo xam ne sport la rek. ndax kuy compétir ndax sport kon sport bu ne war nga see mën a dugg. ci vois sport la sport bu ma bëgg la moo tax ma ñëw dugg ci tu vois loolu la rek mais du dara ak sport boo xam ne tamit maanaam da siy gën ci moonin da nga siy am tamit maanaam expérience boo xam ne tey jii bokkul ak si làmb expérience mooy maanaam tey jii di nga xam lu bëri si àdduna si sport bi da da siy baax quoi ndax ngay dugg si si nekk si benn sport rek ah, man bu fekkee sport mooy sa métier war ngaa xoolaat si yeneen sport yi ngay jàng foofu ci vois. ba yàlla suñu borom def nag ñu dugg si loolu moo ñu si dugal mais du leneen ah. ñu gis ne Bombardier moo xàll yoon bi gis nañ si tam mu ngi ci yëngu yow tey nga dugg si lan mooy différence bi un peu euh, ak lamb ji ci wàllu entraînement préparatif beeg yooyu lan lan lan nga ci gis comme changement. waaw mais xam nga MMA moo gën a métti nag bu fekkee entraînement bi quoi moo gën a métti ndax lamb da ngay dem préparer boxu salle musculation dem contact mais MMA dafa am contact am xeex am yëkkati tànk am ko genou am mètre de sol si suuf te xam nga lu ma la expliqué kon moo gën a métti làmb te boo daanoo tamit da ngay am maîtrise boo xam ne mën nga kaa téye suuf ba du jóg kon moo gën a métti làmb mën na maa wax mais ñu ngi si di si jàng bu baax a baax. Hmm. alors nga war a compétir sa combat bu njëkk bi Sénégal sa sa biir réew euh, samedi bi ñu jëm la 14 décembre euh, nan ngay waaje euh, boobule combat pour sa première fois. waaw ñu ngi waaj ñu ngi koy waaj bu baax a baax xam nga nit ki moom euh, nit bu la jiitoo si néeg bu lënd moo lay wax foo toogee n'est-ce pas. kon ñun am nañ see ñoo xam ne suñuy xarit nañ nekk nañ si tu vois ba wax nañ si lu bëri ak ñoo ñoom tu vois te te samay xarit nañ samay gaañ nañ kon am naa droit wax seeg ñoom ñu xelal ma. tu vois lool la ko amee ñu ngi si daal waaj nañ ko comme ni ñu waroon a waajee ànd nañ ci suñuy mbokk te incha allah dinañ gis beneen rërëg bu bees. waaw si wàllu wi mais est-ce que xam nga ki ngay dajal kan kan la parce que tamit moo la jiitu ci MMA ëpp la ci expérience tamit nekk tam combattant français bu ñu xaw a ràññee que xam nga ko. waaw xam naa ko ndax euh, depuis ma amee moom contrat ba léegi euh, maa ngi seetaan ay vidéo am ci waa maa xam naa si lépp am. parce que moom nee na jot na xool say vidéo yow tamit am na lu mu jàng ci yow. waaw man tamit comme ni mu lu wax ni mu jàng si man noonu laa jàngee si moom ndax euh, xam nga nit ki moom boo amee moom combat il nga xam moom lu mu ma nekk lépp. ñu daal en tout cas daal liggéey liggéey nañ ci ak sunu coach bi ma nekkee États-Unis tamit liggéey naa si bu baax a baax ñëw Sénégal tamit ma sama coach boo xam ne ñu ngi siy liggéey bu baax a xam nañ lu mu mën te incha allah ñu ngi koy xar samedi incha allah géew ba. sànq mu dénk ñu ci biir waxam ne dafa euh, tàmm di am combat choc yi di bërek ay adversaires yoo xam ne parfois sax seen biiri dëkk leen di fekk euh, donc moom lii du challenge bu jaaxal. waaw ak adversaires yooyu mu loon am dafa dafa différence kii rërëg la am. laam am koo xam ne koo xam ne maanaam ku ko am rek di nga xam ne am nga bis waaw lu ma koy bëriwul samedi soreetul la 14 décembre maa ngi oo waa Sénégal gépp ñu ñëw supporter seen doom. kaddu bu mujj bi lan ngay wax Sofiane mu ngi lay xool mu ngi jàkkaarloo yow. waaw Sofiane lu ma koy wax bis baa moom na dëggal boppam rek. waaw na dëggal boppam xam ne ni am na combat bu rëy combat boo xam ne du ko mës a fàtte si si addunaam.